société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen bisimila coow li juddoo ci palug fukki membre ak ñaar yu bees yenn ca Sénat réew mi quotidien nee na fayagut ba tey tey la coow li gën a rëy buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi nu yeggee werante gi am ci décret ba méngoo naag yoonam déet waaye itam fa nu jëlee booba lépp décret te ku mel ni njagasi la jàpp ne dañ caa salfaañee luwaa bi tënk tëggi élection Walf Quotidien dëggal ko ne yoo yeleppal ca Sénat coow lu rëy la jur la waral coow la bokk na ci ñañu ne danoo jege lool président Macky Sall ci wàllu politique waaye itam ñi falu feneen ba nuppi ñu boolewaat leen ci ñu ñu fal ca Sénat googa la tribune ne maa leen di wax ñu mu yéenekaay bi ne Abdoulaye Sylla ca conseil constitutionnel fal nañ ko fa ñëwaat it fal ko fii ci Sénat la tribune tuddee lii scandale bugaan ne décret bi ci boppam moo illégal jaarut yoon Njaga Sylla it loola la wax ci l'info ci yéenekaay bi moom expert électoral bi a mooy mandat beeg ni nu ko yeesalee tax mu ne day attaqué bi lépp décret waaye Ismaïla Madior Fall nga naan njaga dalal du yow yaa ko mën a songu te itam yëf yi soxalu la ministre de la justice ba woon dolli na ca ne njaga silla tuddee sa bopp expert électoral warta tax lu la neex wax lu la neex def waaye njaga moom daa mel ni gaynde gu déggul jàpp ma ngay wéy di woo way politique yaa képp ku jàpp ni yëf yi jaarut yoon ca Sud Quotidien nga ñëw ànd ak moom ngeen songu bi lépp décret lii yéenekaay bi dolli ci li nu lànk doxal la tribunal bu Ziguinchor dogal ci Ousmane Sonko ne coow laa ngay jëm kaw Valdiodio Ndiaye yokk xar mi karaw ne décret bi dafa illégal jaarut ci yoon Bougane Gueye Dany moom fësal ñàkk àndam ci paluk Abdoulaye Sylla ak Cheikh Awa Balla Ismaïla Madior Fall moom di woneeti ne àndut ak Ndiaga Sylla ci lim wax Ndiaga mooma it indiwaat cay tontu ci biir yéenekaay bi di yor yor bi moom daa xëy di laaj ndax nguur gi bëgg naa dem dëgg ci ay la ko waral journal bi nee na mooy ña ngay wéy di lànk ñoom waa DGE jox Ousmane Sonko fiche de parrainage am ñu ne déetawaay ñu ñëw dolleeti ci coowu Sénat a kàddu docteur Mbaye Cissé muy gëstu ci wàllu droit comparé mu ne fal yooya jaarut yoon te itam dafay sax violé protocole additionnel bu CEDEAO waaye lii lépp Walf Quotidien ngi mel ni ku ñu teewut waa Pastef journal bi nee na yi Ousmane Sonko yaa ngay togg plan B fii muy ñor Mamadou Diop Decroix moom ci réew mi quotidien ma ngay fësal la mu yéene def ci Sénégal bis bu nu ko falee moo doonoon ganu grand oral ci réew mi TV samedi a jàngat la ci anam gum gën a xóote ndax li ko jur dafa bari lool waaye li ko gën a naqari mooy tekkaaral gi ci kilifa yi wone booba jamono libération wone ci xëtam gu njëkk ay néew yuñ tëral yéene kaay bi na jéye-jee nga xewee ca Nouadhibou ab gaal bu bawoo Sénégal moo mbëkk doj wu rëy fukki nit ak ñett gisagum nanu seeni néew yéeneen juróom fukki nit yu ne woon ca woowale gaal journal bi ne xamagunu fu nu ne ca waxtu woowa ci waaxi ndakaaru marine wallu na ab gaal gu pan yaboon ñaar téeméer ñaar fukk benn migrant bokk ca benn soxna wu yor liir bu tooy xepp am ñetti juddoo le quotidien la nuwaa di bu koy fim ne daa mel ni sëkk yu ubbeeku juróom-ñaar téeméeri nit itam yéenekaay bi nee na waa Mauritanie wallu nan leen fukk ak ñett yi faatu ca jéye ji am ca nuwaa di bu bi ne ca bërëb ba lan leen rob njàngumeek njàngalem ci Sénégal ku may wut léegi ñu rob ko enquête ne mi ngi ci diggante dund ak dee la ko ca sóob nag bokk na ci gerewu jàngalekat yi te talaata ji gaay dañoo fas yéene delloo buum ca boy boy ga journée morte la ñu woote waaye ministre de l'éducation ne maa ngi leen di xaar ku fi tëgg grève daanu rëq sa ndigg ci journal bi l'éducation ma ngay tëkku jàngalekat ya rawatina ak waa SAEMS CUSEMS yi bëgg a woote journée morte ci talaata ji gouvernement bi ci journal bi ne lépp lu ñu waxante woon ak yéen mën nañ caa dellu ndax li ngeen ñu teg yépp tax na ñu génneegum ñaar téeméer ak juróom fukki milliards ci gafak réew mi def ko ci yéen bu leen loola doyut nag bu ngeen fi bëggee tëgg grève bu ngeen tegut fenn Cheikh Oumar Anne nee na daanu ko defanteeg ñoom woowale tëkku itam fësal na ko ci réew mi quotidien ci libération timoon ak yéen dana ca dellu ginnaaw ndax lu mu sañ la Serigne Sayer Fall mi tuddoon ci bus bi ñu taaloon ak cocktail molotov Les Échos nee na ku maywul léegi tey ñu delloosi ko ci réew mi ña ngi ko tegee loxo ca États-Unis yéeni kaay bi ne Nicaragua la jaar tey jii la war a janook ab juge ca Pennsylvanie buñ ca noppee génnee ko jébbal waa senegal Sénégal googa nag lañuy sàkku ci moom mu dakkal lépp luy jëflante ak waa Israël wi lépp càkkuteef ñu ngi ko biral ci doxub ñaxtu wi ñu doon amal ngir jàppalee ko waa Palestine buñ sukkandikoo ci Vox Populi ci yit ña woowale doxum ñaxtu sàkku nanu ci Sénégal mu dakkal digganteem ak Israël ci nu mu gën a gaawee combat bu gaaw ci la Modou Lo daanee Ama Baldé yéene kaay yu bari xëy yeggeeñu ko Les Échos yeggeeñu ñaar fukki kurpeñ ak ñaar yi Modou Lo fëgg Ama balde ba mu màbb journal bi ne Modou de tey la gën a xarañ Modou mooma Le Quotidien gis ne daal labal amaa ci ndox mi ndox mooma nag L'Observateur nee na safee na nu ne waaye xeeñu toon amutoon couleur li yéene bi jublu ci yile kàddu mooy xamal ñu ni Modou indiwul xarfa yu Mohamed Traoré préparateur mental ne ñàkk takku googa ak yeneen Modou Lo daf caa jox njàngale mu am solo ñiy yëngu ci wàllu làmb ak sëriñ si zàlloo moom ci journal bi di l'observateur ma ngay xayma njuumte yi Ama Baldé def ba tax mu ñàkk ci kanamu Modou Lo Modou Lo mooma sunu làmb nee na ci juróom fukki seconde ak ñaar la duma Ama Baldé duma yu metti ba nuppi garde couronam yóbbu parcelle réew mi quotidien dëggal ko ne Modou Lo kay dese na couronam mooy wéy di doon roi des réew mi dem ak ñun ca Saudi Pro League kaw alxalij waaye li jaaxal stade mooy Sadio ak ñeneen ñi ngànk attaque bu Sénégal géej nañoo wone lu dal xel journal bi ne njeextalu ay bés bi it defunu dara moom Sadio stade nee na juróom benn match a ngi nii dugalut bi ca Saudi Pro League Ismaïla Sarr ak Iliman Ndiaye ñoom it ca Vélodrome sonn lañu fa def bullaay moom journal bi gis ne jafe-jafey confiance la am maanaam daa desee wóolu boppam fii ak saafara di ca am ñu ngi leen di ñaanal kenn ak jàmm di daje ëllëg incha allah. Société de presse